hamdi wa sukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suxtin inda sarsara lahu sanaa'i waarid waani bila saxatin musxadali min bani ديمان أنسارا لله كل لادا أبار مكرمات من أرتال نوافي أجام من سارا إن الذين هلا سرسار خات خزادوا siyaarati faraqu daarayni aw saara Seex Sidi Muxtaar yaa ma gënal mboolem lu maam jàppal taalu be fileek fanu jëm Seex Sidi Muxtaar yaa ma gënal mboolem lu maam jàppal taalu be fileek fanu jëm sëriñ bi yaa tabe te am nga raxma Seex Sidi Muxtaar Mbàkke du xotti war ma jërëjëf sëriñ Malick Fall ku diglu loolu sunu xel dem ci sunu jàmbaar ja Seex Sidi Muxtaar Mbàkke yal nañu ko yàlla fayal waaye nag ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kulu murit di ko ñaanal yàlla sama borom yàggal ko sunu kanam yàgg ci ginnaawam waaye ci kilif teefuk sëñ Seex Bombali moom sëñ Mbàkke Madina ak sëñ Seex Gaynde moom sëñ Bàkki Madina di sëriñ jëmm ji ci sama ginnaaw moom sëñ Xaadim Kebe ak it waajuram ba bàyyi sëriñ Kebe mooy bis bi nga xamee ni moom la sëriñ Xaadim Kebe daan def ci ndigalul waajuram bu baax ba bàyyi sëriñ Kebe ak ca ànd ko bokk yépp kon daal mu mel ni e, duma ci sori damay wàcce sama kàddu jox sëñ Maam Mbay mu woo jànkati xasaayit yépp bu noppee ñu jox sëriñ Yuusu ak sëriñ Mor Fall bu noppee ñu jox sëriñ Jool mu jiite soppe yi bu daaneelee ñu jox soxna Mati moo jigéen ñépp bu ñooñu daaneelee nag ñu jox sëriñ Xaadim Kebe borom bis bi jërëjëf sëriñ Modou mbokki jullit di mbokki taalibe yi ginnaaw bu ñu leen waxee asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñoo ngi woote ci bis bu tedd di bisub sëriñ Xaadim Kebe jànkatu xasaayit di ci woon ak mbokki jàngkati alquranul karim yëpp waaye di ci jiital Serigne Saliou Nguer mi nga xamante ni moo daan jiite liggéey bi ak mbooleem daayira yi daa mbooleem daayira koy daan bokkal ci dëkk bi ànd kook ñoom di woote it jànkati xaside yépp ci njiitu Serigne Abdoulahi Niang ak Serigne Fallou Ndiaye ak mbooleem jànkatu xaside yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew di woo ñëpp di sàkku seenu teewaay ci bis bi bis baa ngoog seen bisa di bisub Serigne Khadim Kébé di tombeeg le 6 di juróom-benni fan ci weeru tubaab wee ñuy dëgmal ñu ngi ci woo ñëpp bàyyi wunu kenn. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa bu ngeen gisee jotaay bi ngeen xam nag bisu mag bu daa am dellusiwaat na mu bisu sëñ Khadim Kébé waaye ñu ngi jël kàddu ci néegal suñu waajur bàyyi Serigne Kébé di woo mbo mboolem fu mbokk nekk. moom bokkal Kébémer gi ñu ngi woo ñëpp rawatina tamit dëkk yi nga xam ne si moom la sëñ Xaadim di jàngal muy dëkk biir Touba ak biti Touba dëkk àll yëpp ñu ngi leen koy soññ bu baax a baax bisu sëñ Xaadim kay bi mu am na ñu ngi ko soññ bu baax a baax ak ñi nga xam ne dañoo yor groupe bi whatsapp di di bokk ci bokk ci liggéey sëñ ñu ngi leen ko soññ bu baax a baax képp koo xam daal gis nga appel bi na nga xam ne mooy sa carte invitation li leen ciy bàyyi xel yéen ñëpp ak di leen ci séntu bu baax a baax yàlla sëñ Tuubaa def jàmm jërë jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp ñoo ngi siyaar ñëpp di sant ñëpp ah, di woote ci turu soppe yi ak daayira yi di ko def nañ ko daan defee rek képp koo xamantul nii yaa ngi ci daayira muy daayira Ndakaaru xidmatul xadim daayira Espagne daayira Thiès ak daayira Kaolack ak ñi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi di roy sañ xaadim ak képp koo xam ne yaa ngi nekk ci daayira soppeb jànkat ñoo ngi lay woo ci bis bi tombeeg la samedi la 6 fii ci Touba Poulaye di ci woo ñëpp góor ak jigéen ñu kenn programme bi comme nañ ko daan doxalee rek bu bis baa njàngum euh, kaamil bi ak xasida bi dinañ ko commencé door huit heures ci suba bu midee ñu bernde bu trois heures quatre heures ñu def siyaar soppe yi ak daayira yi ak kilifa yi ginnaaw tamit ñu def cérémonie bi bu ñu paree ñu yàgg euh, wéyal njàng ba ba set. Euh, bis bi moom bisub Serigne Touba la waaye ki koy woote di Serigne Khadim Kebe dafa. nekk koo xam ne waxuma la murit waaye jullit yi lépp la am lanteel fu nekk am na fa ay nit te liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek ko may ndax liggéey Sëriñ Tuubaa bi mu ne moom da cee desut ginnaaw moo tax mu am murit am na xaadir am na tijaan am na laayeen ba ci catholique yi sax ndax liggéey bi muy liggéey am na ñoo xam ne sax ci lañ jaaree dugg ci lislaam kon nag bisam du tuuti waaye nag bis bi mi ngi ci jiital représentant xalifa général de murit Alaaji Mbàkke yu fay ak euh, xarit di xaritam di léppam doo koo xam ne teg na ko foo xam ne Serigne tubaa dong nga tax mu teg ko fa te xam naa ci dara waaye mi ngi ciy teg Serigne Abdoulaye Diop di xaritam boo xam ne moom itam Serigne tubaa dong nga tax mu jàpp ko waaye nag mi ngi ciy teg Serigne Fallou Ndoye di xaritam di kenn ci moom moom itam mi ngi koy woo ci bis bi waaye nag mi ngi ciy teg kenn di xaritam di yaayam di léppam soxna Ulay Jëng kon daal loolu la woon lool la waxoon ñu soññee ko ñu ngi ci woo ñëpp ndax bis ba le 6 lay doon di samedi incha allah fii ci Touba Poulaye wasalaamaaleykum ak Serigne Moustapha Fall. di xaritam di kenn ci moom itam mi ngi koy woo waaye mi ngi woo Serigne Amidoune Diop mi nga xam ne moom moom moom moom du ñaar kenn lañ ak Serigne Mamor Mbacke moom Serigne Abib moom Cheikh moom moo doon Ndumbe ñooñ daal la ci woo di samedi le 6 octobre fii ci Touba Poulaye ci gi ci Touba wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barkatuhu. kon nag ñu sa tur ak sa sant di leen baal àq di leen baal di woote nga xam ne moom la fii ci Touba Poulaye maa ngi woo sama mbokk jigéen ñi ñëpp. ak waa kër gi ak mbokk yi ak soppe yi yëpp ñu ngi leen di woo soppe yi nekk dakaar ak yi nekk Touba ak képp koo xam ne si dégg nga yëgle rek maa ngi woo suñu mbokk jigéen yi yëpp képp koy wax asadan laa ilaaha illallaah rek maa ngi lay woo kon suñu mbokk jigéen ñi fi daa xam na ko kon nag ñu ngi leen di woo bu baax di leen soññ tamit ku ne teel ñëw mbokk yeeg xarit yeeg wëllëre yeeg am ni jàmm yi yëpp ñu ngi leen di woo di woo daayira xidmatu xaddim bi nekk tuubaa ak bi nekk Dakar ak ñëpp ñu ngi leen di woo daal di ñaan yàlla ku fa teew yàlla na suñ ci baax faj say aajo aoudu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginnaaw bu nu sant yàlla mi nga xam ne moom rekk mooy buur di julli ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam di dellu di yeesal sunu yaakaar ak sunu jaayante ak sunu cant ci si Ahmadou Bamba xaadimu rasul yàlla na ko yàlla doole fayal ci sunuy jëm eh, di sant bu baax ak a ñaanal ak a fàttaliku sunu baay sunu maam sunu lépp sunu soppe a si jël Muxtaar yàlla na yàlla dool li ko tawféex ak ngëneel te taas ñu ci barkeem di saare bu baax ak a nuyu sunu yaakaar ñu ñëpp xalifatul am li tariqatil muridiya di cheikh mouhamadinil muntaxa ibnu cheikh mouhamadil basir ayadawullahu wa nasra yàlla yàggal ko fi te wérul ko ba liggéey bi mu yor di liggéeyub sëñ tubaa mu jëf ci lu kawe njortam te ànd koo jullit yëpp ak taalib yi di saare sëñ cheikh mbàkke ibnu sëriñ mbàkke madina ak sëñ cheikh gaynde rakkam di sunu sëriñ ak sunu waajur bàyyi sëriñ Kebe ak mboolem njabootu sëñ Mbàkke Mbànd gi yëpp mbokki taalibe yi jërë jëf bis bi nag mu ngi noonu euh, ñu ngi koy def ci ndigalul sëñ Muntaxa ndax ku fi nekk di am murid rek loo yëkkati moom mooy ne ci bopp yoon wi ak kilifteefu sëñ Cheikh Madina ak sëñ Cheikh Gaynde ak sunu waajuru bopp bàyyi sëriñ Kebe ñu ngi leen di fàttali bis boobu bi nga xam ne muy bisu sëñ Tuubaa ndax ni ma ko baaxoo waxee bis bi seex Mouhamadul Moustapha jëlee sëñ bi njaareem andi ko Touba su bis bi dellu see rek moom lañuy ñuy taxawal at mu nekk muy bisu cosaan di bisu ndigal di bisub cant di bisub ñaan di ci fàttaliku sëriñ Mbàkke Madina sunu yaakaar ja yal na yàlla dolli ci moom leer te taas ñu ci barkeem mbokki taalibe yi woo nañ ñëpp kon du yar di ci jaaraat xanaa di sant rek di ko yëgal kilifa yi. Eh, bawunu kenn ci yoonu murit bi yëpp ci mboolem njaboot sëñ gi ak mboolem seexi sëñ Tuubaa yëpp ak mboolem murit yi yëpp waaye nag ak mboolem jullit di koy wax asadu an laa ilaha illallah yaa xam ngay murit wala tiijaan wala xaajir wala laayeen ñoo ngi lay fàttali bis bi di ko fàttali tamit bu baax jàngalekati alxuraan yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi yëpp te yàlla dogal at mu nekk ñu duñu jàppale ci bis bi ci njiital sëñ Saliou Nguer ak mboolem sëñ daara yi nekk ndindi yëpp ak sëñ Ousmane Diop ak ñu ñu ciy jàppale ñëpp ci kaamil yi ñu ngi leen ci soññ ndax bis bi bisu ñaan la bisu sant la bisu sëñ Touba la kon nag li ci ëpp solo mooy alxuraan ji ak xasaayid yi kon nag ñu ngi fàttali ñëpp ak ñi daa durus ñëpp ñu ngi leen koy fàttali di ko yëgal nag boroom réew mi ndax kenn mënu fee def dara te doo ko yëgal président Macky Sall ak mboolem ñi ne ci ginnaawam yëpp ak ñi koy jàppale di fàttali tamit bu baax jànkati xasida yi bis bi seen bisa ñu ngi leen koy yëgal yéen ñëpp niñ ko waxee ndax sëñ maam bay wax na ko ndax seen bisa te ñun xasida yi rek la ñu am te ñun mboolem ñiy jàng yàlla ñu boole wax tasimo bi abillahi jamen wala tafarraqu te ñoo bokk yor liggéeyu sëñ Tuubaa bi kon nag ñu ngi leen koy fàttali di leen ko yëgal di saaku seen teewaay di ko fàttali tam sëñ Sidi ña nga xam ne sunu xarit la sunu lépp la at mu nekk moom la ñuy tudde bis bi ngir kóllëre sëñ Massamba Mbaye moom it moom lañ ko dara jaale ren muy sunu xarit di sunu lépp di ko yëgal nag mboolem ñi nekk Touba ndax bis bu bisu waa Touba la ndax ñoom ñoo ko moom euh, rawatina xidmatul xadim bi nekk Touba ci ndigalu Serigne Diol ak Soxna Mati ak mboolem xidmatul xadim yi nekk ci senegal yëpp ak yi nekk ci Afrique ak Europe ñëpp ñu ngi leen ko yëgal. bis bi nag di ko fàttali tamit mboolem ñi nga xam ne yàlla moo ma booleeg ñoom seen bis bi ma di ko taxawee sëñ Yuusu lim na ko ak mboolem fu nit mën a nekk sama wëlërëy bopp yi ak fu ñu mën a nekk ñu ngi leen koy yëgal ñu ngi leen koy fàttali di ñaan ku ci teew sëñ Tuubaa mi nga xam ne lépp lu waay yëkkati ngir moom dina la fay fay gu kawe di ñaan yool bi nga xam ne ak barke bi nga xam ne mu ngi ci bis bii. ndax keroog bi seex Cheikh Mamadou Moustapha jëlee sañ bi njaareem indi ko Touba loolu mooy sunu pajuk aajo ñun waa Touba ñëpp ndax ku tedd ki nekk fii ci dëkk bi moo waral dëkk bi amul amul amul dara amul amul discothèque amul baar amul dara te seen gis ngeen ko wax nañ ne Touba mooy deuxième capital ci Sénégal te suñu doxee tuuti Touba daana doon première capitale ndax ku tedd ki fi Cheikh Moustapha andi kon nag bis bi bisu ngëneel la bisu tawféex la. bisu sëñ Tuubaa la ku ci teew sëñ Tuubaa nga ameel ak jote yàlla na faj sa aajo yëpp ci saahir ak ci baatin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ah mbokki jullit yi xam ngeen ni bis baa ngi noonu kañ la le 6 fu ñu koy defee fii ci poulailler bi waaye kan moo koy woote taalib sëñ Bamba bi ah sëñ Xaadim Kebe yal na ko yàlla fayal ngeen xam ne nag bis bi nam daan demee rek lay demee kan ku daan tuddee lan koy tuddee ah sëñ Sidi Ñang ah jàmbaar ja waaye nag dara jaale ko sëñ ma Samba Mbay mii ci njëriñam di ku baax di ko amuk bi ngeen xam ne daal sëriñ Xaadim Kebe daal bawul kenn bawul fenn bawul ñenn ginnaaw bu fi kàddu yooyu jaaree nag ñu waat yëkkatiwaat kàddu gi nag jox borom bis bi mu bégal àdduna bégal bis bi ñu gasandu ko kon ñun ñëpp ñu bokk maa si diglu sëriñ Xaadim Kebe sunu cant ak yow daam جئتنا الدنيا كنت خديمنا هند ربيا دامبك جئتنا الدنيا قديمنا هند ربيا جابو سنتي سنغم def na la ko war xaadimu sil madinatil madinatil munawara daa Mbàkke jiitu na dunya xadimu na inda rabbiya